entreprise secteur bi waa MCR Sénégal amal nañu signature collaboration ak waa université Assane Seck bu Ziguinchor boobule lëkkaloo dina tax ñu mën a gën dooleel dëkk yi nekk ci région Casamance yi ngir ñu mën a am accès ci wàllum électricité bi. Euh, dañu ñëw fii ci Ziguinchor euh, euh, toog ak waa université Assane Seck de nañu sax ba noppi convention bi. convention bi nag dafa am solo loolu parce que ñun MCA euh, xam ngeen ne li ñuy liggéey mooy dañu war a moderniser secteur électricité au Sénégal dañu war a renforcer secteur électricité bi mais particulièrement nag pour zone sud bi dañu xool nan la ñuy def ba gën a dooleel population yi indi leen courant bi muy électrification rurale bii la projet dina subventionné lu tollu 6000 ménages ngir ñu mën a bénéficier wu installation yi du ñu yem foofu indi leen également ay équipements yoo xam dañ koy subventionné ba pare installé leen euh, lu toll ci 6000 ménages daanaka jéem a xool dañ leen defal installation intérieure léegi moo tax tey jii nag ñu toog ak waa université Assane Seck bu Ziguinchor pour xool liggéey boobu ni ñuy def yëpp nan la ñuy booloo ak université bi ba nga xam ne seen étudiants yi seen professeurs yi dana mën def ay projet de recherche te dina tax également ñi nga xam dañuy jàng fii si université bi suñu génnee danañ mën a yombal nu ñuy duggee si monde du travail bi donc muy insertion professionnelle bi. waa université Assane bu Ziguinchor di rafetlu bu baax a baax bii le projet. ñoom ñoo jóg. ñëw si université yi nee leen di bëgg a liggéey ak yéen pour mën a wasaare li nga xam ne mooy liggéey bi ñuy def ak impact bi muy am si askan wi si plan économique bi mais aussi accès à lénergie loolu moo tax vraiment ñun on tient à les féliciter di la remercier en tout cas université kontaan na liggéey ak ñoom dans ce sens là collaboration bi ci diggante MCA Sénégal ak université Assane Seck bu Ziguinchor di gën a fësal engagement acteurs nationaux yi ak internationaux yi ci liggéey bu am solo bu ñuy wëyal ngir permettre ñëpp mën a am accès à l'énergie